date situation bi nga xamante ne président Khalifa wax na ko. Mhm. la jeunesse c'est pas l'avenir c'est le présent. doo ko dégg feneen. <laughs> doo ko dégg feneen marque déposée. <laughs> parce que Sénégal moo bindoo noo xamante ne à 40 ans dañu la naan xale nga bul yàqamte. ça c'est et fort heureusement au Sénégal à 18 ans tu as ton bac. vingt 25 25 ans tu ingénieur. à 35 cinquante tu as 10 ans d'expérience. lan lañ la mënul dénk. xale bu am 35 ans pas xale parce que nekkatoo xale nit bu am 35 ans bu jugoon ne dama soxla réew mi ñu ne ko demal nga toog xale nga. lan mooy xale ki nga xamante ne il a 10 ans d' expérience dans son domaine à part à jour lan lañ ko mën a jàngal lu bees li ci li ñuy defaree liggéeyam. xëy na sagesse parce que aussi yenn responsabilité de la sagesse. maintenant une jeunesse bien formée. encadré par cette, cette la moom lañu war a am Sénégal parce que suñu plus de cinquante pour cent ay xale yu ndaw lañ donc cette jeunesse là doit être extrêmement bien formée et encadrée que ce soit de manière civique ou sur le ou au niveau de l'éducation parce que xam-xam mooy ndaw civisme citoyenneté citoyenneté éducation bu ñu xoolee Sénégal dañu naan dëkku Cheikh Ahmadou Bamba dëkku Cheikh Islam El Hadj Ibrahima El Hadj Ibrahima Niass mhm. dëkku Alaaji Malick ba ñuy toj àdduna ban at ban at la ñu amoon dépassé wuñu 30 ans donc ñooñu noonu a fleur de lage si ngay mun a indee révolution dans la dans la vie su may déglu sama xarit yi dafa mel ni entre Puma PUDC ak PSS le Sénégal <laughs> mujj naa doon raw Dubaï. mais am na yu am solo yu mu def. am na yu am solo yi am solo yi am solo c'est dans le cadre normal du de l'évolution d'une république. waruñu leen ci tàccu. seen lañ def euh, dinañ leen encourager parce que euh, suñu maam Abdou Aziz Sy Junior moo ko doon wax mu ne ku def li la war ndax jar naa wax jaajëf mu ne waaw jar naa wax jaajëf ndax am na ku am lu ko war te def ko. Mhm. ça c'est vrai donc ki ko def dañ koy wax jaajëf mais aussi c'est pas extraordinaire on les pay pour ça. Mhm. nous peuple sénégalais on paye pour avoir des résultats. Mm Et ces résultats la on, on a l'obligation d'être très exigeants envers, envers nos dirigeants, mm-hmm. surtout nou jeunes. On va être très exigeants. lu ñu defal dañ leen di laaj lu ko ëpp parce qu'on naan donné les moyen pour. Ouais. c'est très cher payé ouais. Mm-hmm. agriculture plan Goana kan moo ko fi defoon. Abdoulaye Wade. Reva kan moo ko fi defoon. Abdoulaye fu mu mujjee. tous ces plans là yi nga xamante ne gouvernement bi moo ko def fan la résultat bi mujjee fan la résultat bi mujjee donc on ne on ne on du rêve parce que des membres d'eux qui sont au sein d'eux ñooñu ne semence bi dañ koy jaay engrais bi soo bokkul ci ñun doo ko am. c'est détourné. si c'est moo ko wax. da nga ko wax nee na am ñoo <laughs> doo ko weddi. comme que doo ko weddi nag dañuy continuer parce que loolu mooy li nga xamante ne dañ ko gis dañ ko dégg dañ ko dañ ko dañ ci teg ba e avec notre niveau d'exigence. avec un problème personnel. avec avec notre niveau ah, d'exigence. avec on vous dit plus bien plus que ça parce qu'on mérite bien plus que ça. le peuple sénégalais a l'obligation d'avoir un pays boo xamante ne ces jeunes sont bien encadrés bien formés ñu wa am ñu war a am ay abri provisoire ba léegi ci Sénégal c'est insensé c'est pas normal du tout mais ko bu baax baax. wàññi nañ ko bu baax maintenant dañ ko war a éradiquer éradiquer chaque fois c'est des étapes nous en tant qu'opposants on vous exige d'éradiquer ça parce que c'est notre rôle et c'est notre devoir parce que Abdou Diouf doo ko fi bàyyi Abdoulaye Wade bàyyi ko fi yéen ngeen nar ko fi bàyyi parce que votre pouvoir est finissant. on en a fait les moyens. jeexal ko ci 12 ans yi. li ñu def si fonds force Covid 19 bi ça finissait bien plus que ça. bien plus que ça parce que cette solidarité de Sénégalais à cette époque-là ça n'existait pas. donc ñun ñëpp ñoo boole lu ñu am ak suñuy pépek suñuy pépek pour mun a doxal Sénégal. donc bu ñu retrouver woo ñu war a dem ci cours de tribunaux yi caxat-caxatee alalul réew mi moo ñaaw rapport génn fii ñuy dem va et vient tribunal ñu war a dem justice rapport yi di fël fu nekk ñii ñu téye ñu téye rapport yi yeneen ñu bàyyi rapport yi au nom de parce que ni ñu yoree suñu réew mi loolu lañ buggul